di dolloo buum ca booy boy ga rek ah, yàlla def na mosuñoo ñàkk demi final yàlla nag moo ko dogal du suñu mën du suñu dara mosuñoo ñàkk demi final ah, depuis booba ba léegi 10 ans xaw ma 12 ans mosuñoo ñàkk demi final yàlla di ñu ci jàppale yàlla na ñu yàlla jàppale ni mu ñu doon jàppale. waaw ASC jamono moom mën naa ne kenn dootuñu ko présenté parce que joué nañ une fois ci nawetaan ak ci aussi. bon ni ñu koy waajalee nag comme d'habitude nu ñuy ah, waajale suñu match yëpp depuis bi ñu commencé nawetaan yi ba léegi nu ñuy waajale euh, match yi rek noonu lañ koy waajal. ku wax mystique ne jamono kooku moom suñu philosophe la. waaw loolu nga wax rek loolu yëpp dëgg la mais cadre nawetaan lañ ne euh, jamono dañuy gagné ñun dañ koy gagné mais demi-finale bi jàpp nañ jàpp leen ne ñu ngi koy waajal bu baax a baax. waaw waaw fair play rek parce que àdduna moom ni ngay gis nii. Ah, li ci gën a am solo moo di saa bu équipe jógee di fubali ñu ne équipe bii kat jàmm lay ut jàmm lay xam nga mais nag nañ gën a góorlu rek gën a jàppalante parce que caajaay ñoo ko bokk lu ñu mënta xëccoo wala ñu séddoo ko dañ koy bokk te bokk bi moo di ñu bokk ndey ak baay nawetaan la rek day jeex xam nga di lancer appel zone bi di lancer appel yeneen équipe yi des fair play lépp loo xam ni war nañ ko rek nañ fair play wa toujours dans le fair play rek boko ko jëm ku ko xam bu démé téré day football ci njëkk ak ci teranga muy ci supporter muy ci ñëpp ñun lool lañu xamé lool lañu xamé dem football bu ñu ñu ñibisi bu ñu ñu supporter ñibisi lool lañu xamé mom la c'est l'équipe fair play boko jom jëm di ñaan aussi tamit euh, ñu nekk ci koñ bi xaxam ñu génn supporter sen ASC boko jom jëm yàlla may ñu ndam waaw ñu ngi koy préparer bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy waajal bu baax comme ni ñu daan waagay waajale bu njëkk rek si ñu mat si yëpp euh, yaakaar naa ñu ngi koy waajale nu ko nu raw loolu ñu ngi koy waajale noonu. niñ doon préparer woo suñuy suñuy match ba àgg demi final noonu lañ ci nekkee entraînement guddi ak bëccëg préparé wu psychologiquement. mobiliser koñ bépp ñu ñëw jàppale ñu ci foog naa ci loolu lañ nekk fekk ngeen ñu ci entrement déjà ñoo ngi suñu ay préparation. je pense que équipe yu mag yi nekk caajaay yëpp xam nañ fan laa jaar ak ñoom kon ñooñu moom nekkul équipe boo xamante ne yaakaar naa daal ci ci ci lu mu mën a jaala jaaxal ci sama parmalas la parce que yàgg naa si nawetaan bon yaakaar naa équipe yi fi nekk yëpp daanaka bu dul askan rek maa ci mag ci ci ci caajaay te ku la jiitu ci néeg nag moo la mën a wax ne tegal fii sa tànk quoi. physiquement ñun c'est-à-dire ñun luñ mës a gëm ci football mooy dajala compétition dina am ku gagné ak ku ñuy gagné ñun lu ñu gëm mooy gagné ASC Renaissance loolu lay yóbbaale terrain mystique beeg yëpp. beneen beneen fànn la rek ñun lu ñu gëm mooy entraîner am xale yu mën a football am jom ñoo gagné match bi mystique bi nag après ñu bàyyeeka ak suñu suñu suñu suñu paay ñu ñëw saf-safal bu baax a baax parce que ci la bokk. non score bi nag euh, mën naa ko mën naa ko mën naa def 1-0 daal garaaw baax na benn du ma du ma du ma dugg du ma dugg ci nag ñaata ñaata la ñuy doo waaye nag ñun daal suñuy dem dem ASC Renaissance fi victoire la ñuy dem objectif bi ren dañoo toog daje def suñu assise fii ci ASC bi coupe lañ bëgg a jël. di woo ñëpp si jàmm ak salaam euh, yàlla dogal ñu ñëw terrain euh, ci match bi di euh, suñu match demi-finale bi ñu football ko ci fair play ñu nekk benn def ko ci jàmm ak salaam ñëpp nekk benn incha allah parce que caajaay ñun ñëpp benn lañ boo xoolee doomu caajaay caajaay c'est différent ak kon boo demee ay Mbour ay Dakar caajaay dafa nekk benn dëkk boo xam ne ñun ñëpp sont les mêmes têtes yaakaar naa bon kon loolu jàmm rek lañ mën a moo mën a am ci Thiadiaye. waa sant yàlla biñ tàmbalee CNP bi ba léegi jàmm lañuy jàmm lañu nekkee terrain gars yi ngi kaf di di football football nag dina am ku gañe ak ku ñu gañe waaye lépp nag bii Thiadiaye lay ñëwaat rek suñu organiser navétane loolu rek mooy objectif bi ñu ñu ñu téye xale yi divertir leen football loo leen ngoon gi suba si ñu dem. comme ni ngeen koy defee ci seen activité culturelle yooyu kon gëm nañ ne jàmm kese mooy xew ba final parce que loolu la zone onze woote. di woo ñëpp ci jouru match bi ñu ñëw seetaan si waa Caajaay yëpp ñu ñëw comme ñun doomu Caajaay yëpp benn lañ ñu ñëw seetaan si ko ci jàmm ak salaam euh, yaakaar naa renaissance bi nga wax ne sax moom lañ taseel daanaka ñun ay dëkkandoo lañ parce que ñu ngi nii sama ginnaaw euh, ñun ñëpp benn lañ comme euh, yàlla yàlla dogal ñu dem terrain ñu fubal ci jàmm yàlla dogal ma gagné ko nag dem final incha allah. invité ñëpp. Nous sommes venus parce que tribune sommes xaw Nous nañ que ñu sommes ne yi ñoo ngi nous na Nous ala Nous phase demi-finale di invité la Renaissance d'abord supporter bi douzième lion bi Nous yeeg les yeeg nous ak surtout nous yi Nous ci nawetaan nous ñu nous ci les demi finale Nous opposé Bokk Jamono Brax et euh, Renaissance nous avons lancé un appel à tous les jeunes un appel à toutes les équipes à toutes les ASC qui nga à la participer nañ ci féliciter d'abord parce que ci ay conditions yu méttee décarcassé pour ñeu participer ci mouvement nawetaan donc ñu leen di féliciter ci lolu tiajay dafa bokk ci ñi nga xamante dañoo yewu légui ci football li tax ñu bokk ci ñi yewu légui ci football moy le football est devenu euh, un sport euh, transversal moko mëne mënee nonu ndax légui ñi ciy participer ñep ñu ci bari ambition moo leen yëkkati nous sommes confrontés à des équipes très jeunes mais demain ñun ñoo nar am les nawetaan yi dàq ci ci ci ci département bi donc lool non ñu war koo mettre en valeur naka lañ ko wara mettre en valeur moy ñu gëna respecter li nga xamanteni mom le ñoñ nga xamanteni ñoy diriger moy ñi zone yi président zone yi li ñuy ñuy piloter. ñu respecter engagement yi nga xamante ni jël nañu ñu respecter principe yi nga xamante ni moo tax nawetaan war a am di lancer waat beneen appel autorité dëkk bi di lancer appel euh, à la magistrature communale parce que tey à partir de 17 heures wala demain à partir de 16h30 ay jeunes. ils sont compris entre 18 ou moins de 18 jusqu'à 25 ans, voire même 30 ans. Ils ont été dans le Ils ont des ambitions claires. Nous devons les accompagner, parler, nous organiser des ce que nous avons fait. Nous que les jeunes préoccupés le sport. defe naa ne jeunesse la boo xamante ni war nañ leen mën a jàppale mooy financement yi nga xamante ni mu ngi jóge ci autorité euh, communale bi ñu koy jot à temps ak leneen li nga xamante ni mu ngi ciy topp parce que it ci loolu noonu lañ mën a canaliser ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci secteur boobu pour que demain nawetaan dootul nekkati affaire boo xamante ni. lu simple lay doon wala loo xamante ni terre à terre pour recueillir rek nit ñi rek mais day doon loo xamante ni dañ koy normer de telle sorte que au niveau communal dafay am ay retombée yu significative pour citer ci côté boobu noonu pour wax ci rek ne nawetaan nekkatul affaire de koñ ak koñ rek mais acteurs yi nga xamante ni ñoo ci participer am nañ opportunité léegi bés bu ñu génnoon fii ak licence bi ñuy am fii bés bu ñu génnee dem ci yeneen club club formateur boobu noonu nga xamante ni moom moo tax ñu gis xale boobu noonu dafay bénéficier wu ci avantage yi nga xamante ni booy joueur boobu mu ngi am dans l'avenir appel bi may def nag ci population bi mooy ñu ñëw soutenir football local bi nañ ñëw soutenir ko nañ ñëw stade di seetaan match yi nañ animé wu de bonne foi nañ animé wu que du foot manam nañ animé wu ci bëgg football ak ñëw ak fair play jamm rek tax leena jog paske parce que ñëpp ñun ñëpp caajaay lañ dëkk donc amna lo xamanteni xajul suñu digënté te duñ ko seetaan amna lo xamanteni warut moy ni def ba exi fi ci demi finale ñu continuer nonu ba ane yi nga xamanteni ñu ngi ñëw caajaay day am ay nawetaan yu neex yo xamanteni day am valeur ci jamm kese parce que ci lool nonu lañuy wo képp koo xamante ni yaa ngi joué yaa ngi ñëw ci nawetaan yi loolu daal moo nekk message boo xamante ni ñu ngi koy lancé population di leen wax ne nag zone 11A comme zone 11B ñu ngi leen di jox rendez-vous ci euh, nawetaan yi nga xamante ni ñu ngi ci côté zone 11B ñu ngi ci demi-finale yi côté 11A ñu ngi déroulé en attendant ñu ñëw fekk suñu vers les demi-finales et finales